si ak ziare si sëñ Mamadou Bachir sëñ Mamadou Muntaxa Bachir Mbacké xalif général de Mouride fekk si ko si bu tedd bi di Porokhane bu Maam Jaara ñëwoon euh, si tournée économique inauguration yoo xam ne dana am impact fii ci Porokhane ndax yoon yu am solo yu jëm Kaolack bu ko dalee Fatick Kaolack Kaolack Nioro Kër Ayib euh, ma yegg si fii won ko itam sunu yéene ginnaaw buñ ko ziara bi pare ak sunu fas yéene ànd moom ci liggéey bi ko ñu Touba dëj muy fii ci Poroxaan muy ci Touba ak dëkk yu tedd yëpp yi nga xam ne kilifa yoon bi am nañ fa ay yitte euh, mu teeruñu ni ñu daan teeroo wane it cofeel bu mag a mag wane en tout cas yéene ci it di jàppale ñu ak ñaananu li nga xam ne yan la bu ñu yàlla teg ci bopp réew mi euh, Porokhane nag ñëw naa fi ay yoon waaye am na plan directeur d'urbanisme bu ñu bëgg a def bu am solo ndax dëkk bi dafa ay xur dañ ko wër ba tax yaatuwaay bi ak yokkute bi moo xaw a am tolof tolof waaye joxe naa ci ay ndigal pour que ministère de l'urbanisme tàmbali liggéey boobu boole yeneen yi nga xam ne déjà lu jiitu lu tàmbali woon nañ ko ay weer si ginnaaw ni ma koy defee ci këru diine yëpp euh, fas yéene nag fii tam jox ko taxawaay bi nga xam ne moo war a nekk taxawaay prof donc loolu moo doon waxtaan wi gisewaat nañu fi biir mu fëddaliwaat ma loolu euh, nga xam ne ñu ngi am mbégte lu rëy nag ci voyage bi ñu fi ñëw ak ziara bi ñu fi ñëw tey monsieur le président nga waaw li ma inauguré tey euh, ab pàcc la rek ci programme boo xam ne dama ko jagleel wàllu transport ci biir réew mi ndax transport dafa bokk ci lu yor développement ndax dem bi ak dëkk bi ci doomu aadama yi ci marchandise yi ci service yi bu amulee rek day am lu muy indi si ay jafe-jafe gis nañu embouteillage yu mag yi doon am Dakar commencé waat na daye na oto yi dañoo bëri kon war nañu am ay yoon yoo xam ne dañ ko hiérarchiser ay autoroute ay yoon des routes nationales des routes départementales ay pistes de production moo tax léegi yoon bu ñu def bu nee daañu def ay réseau de pistes si wetam def ci courant jàppale jigéen ñi defaraat école yi defaraat lépp loo xam ne day indiwaat yeesal ci dëkkuwaay Fatick Kaolack ku ne gisoon na ni mu mel ak la fa gaañu si doomu adama ci ay yu metti Kaolack Nioro ba Kër Ayib gis nañ aussi ni mu meloon Passy kër Waly Ndiaye ba Pass jëmaat Sokone itam kon dafa mel ni Kaolack dafa nekkoon carrefour boo xam ne dañ ko waroon defaraat muy Kaolack étoile loolu la defaraat tey bi macha allah ëllëg danaa dem Foundiougne Foundiougne nag lañ fay dem mooy pom boo xam ne. daanaka mosul am waxuma ci Sénégal waaye daanaka ci Afrique taw jant ndax même pont bu Gambie bi neuf cent et quelques mètres la bii dana nekk près de cent mètres nekk pont bu kawee ndax ba yi la jàll wax dañ bëgg aussi Kaolack port bu ñu def defaraat kon liggéey la bu ama am solo bu ñu def ak gouvernement bu République populaire bu Chine di liggéey fii nii ci yoon yi ak Banque africaine de développement Fatick Kaolack état bi moo ko financé totalement bu ñuy wax sax état bi lépp lu yeneen partenaires def moo ko financé ndax ay bor la waaye dañ koy def ak ay partenaires pour mu gaaw ñu mën koo defaraat. am na train buy ñëw ah war nañu defaraat aussi train bi dem bama ko loolu yëpp avancé nañu si boo demee tey dans le nord aussi Ila Morphine ñu ngi koy liggéey boo demee Casamance ñu ngi liggéey ren 6 di liggéey RN4 bi di jëm Sénoba Ziguinchor kon réew mi moo nekk ci phase de liggéey boo xam ne. bu ñu ko paree loolu mooy tax émergence mën a am ndax dem bi ak dikk bi dina yomb courant bi réglé nañ ko euh, njàng mi ñu ngi ci euh, mbéy mi gis ngeen jafe-jafe euh, maanaam li ñu am loolu la ñu bëggoon production bu mag am nañu tey production bu jéggi dayo un million quatre cent mille tonnes d'arachide kooku xam nga mënuñ ko def rek ci Sonacos mënuñ ko def rek ci consommation locale donc il faut ñu xalaataan nag léegi Sénégal ban stratégie commerciale lay am vis-à-vis de l'extérieur pour production yi muy am ñuy mën di béy suuf contrat de culture di ko mën di livre réew yooyu su ko defee béykat yi producteurs yi du am benn tolof tolof loolu tam wax naa tey suñu mbokk producteurs yi suñu mbokk OPS yi nañu ànd ak gouvernement bi ci liggéey bañ a yàkkamti bañ a mbapat bañ a def lenn déjà li ñu dugal ci alal ci yoo xam ne ci état bi la jógee parce que mënuñu xaar banque yi ëpp na presque trente deux milliards xam ne lépp lu état bi waroon jënd si ay jiw pour déwén déjà jënd nañ ko pour mën a permettre campagne bi amorcé wu. léegi nag ñu ngi dem seeti réew yu mel ni Chine suspendre nañu taxes yi ñu defoon à l'exportation ñu ngi xoolaat diw bi niñ koy mën a defaree ci Sénégal du Sénégal di lekk diw bu muy produit ndax suñu dund yëpp boo koy xool ceebu jën la yaasa maafe nangam nangam loolu yëpp boo koy xool ceeb la diwlin soble. te yooyu ñu ngi am jën ñu ngi am donc buñ ko xasee def rek Sénégal day automatiquement am balance commerciale bu excédentaire da ñu jéggaani yooyu donc aussi ab importation bu demee bay menacé production bu toll nii war nañ taxaw nag xoolaat suñu bopp xoolaat mbir yi ni mu war a demee niñ ko defee si ceeb bi niñ ko defee si oignon bi ñu xool gerte gi niñ koy defee noonu parce que mën nañu aussi sacrifier wala seetaan ay deux millions trois millions ñuy béy gerte Euh, bàyyi rek diwlin euh, bi di jógee fu nekk di fi dugg donc loolu wax naa gouvernement bi ñu saytu ko boole yokk point de collecte yi lever complètement taxe bi nga xam ni moom la ñu def ñu jàppale aussi huiliers yi pour que ñoom seen bopp ñu togg diwlin ji Sénégalais yi consommer diw boobu donc loolu bu ñu ko defee yaakaar naa ne vraiment waxuma la ren mais yeneen at yi bu ñu amee lu toll ci million ak genn wàll wala million ak lu topp wala ñaari million sax daañ ko mën a gérer donc loolu ci la ñu